mbooloo mi nuyu naa leen tey nag dama am euh, invité bu may bëgg lool ndax dafa am lu dal ci moom wax dëgg yàlla dama demoon Algérie boobu ak léegi yàgg na euh, xam naa li ñuy wax rek ne Sénégalais bu génn rek muy ambassadeur réewam dal ma fa ma dem fa wax dëgg yàlla gane gu xaw yàgg waaye ñu teeru ma fa euh, teeru boo xam ne bii réew gi daal weesu na sama daraja bu ndaw bi lool ma bëgg ci lool ndekete yow moom Ibrahima Ba Mahmoud Diop bi. Euh, moo fa jaaroon moom Barham Diop jaar fa nag euh, tubaarkàlla wax dëgg yàlla dafa jaloore yoo xam ne yi dafa sotteeku ci sama kaw tubaarkàlla mu neex lool ci man kon nag tey dama am mbégte ci teeru fii euh, Ibrahim Mahmoud Diop ñu koy wax Barham di ko di ko nuyu Barham maa ngi lay nuyu. tey nag dama bëgg ñu ànd ak moom def sujet boo xam ne bi sax dama ko romb rek jàll ndax dama bëgg daal ñu barkeelu ci xam-xam wax dëgg yàlla suñu sujet mooy. fan la euh, alquran alkarim jaar ak ak jamono waaye dama ca yam na dinaa fexe daal ba xaw ko buskali tuuti ba ñu euh, jële ci moom dara insha allah euh, ba xam maa ngi lay nuyu bëgg naa nag bala ñuy tàmbali nga wax ma lan mooy alquran alkarim mm-hmm. bismillahi rahmaani rahim jërëjëf Babacar alquran alkarim dafa am définition bu nit ñi tëral mm-hmm. ak sax man boo xam ne moom gënal bu alquran ci boppam tëral mm-hmm. Euh, théologue yi dañuy lay wax ne alxuraan mooy téere yàlla bi nga xam ne euh, daf ñu autorisé ñu di ko ci jaamu jàngam rek nekk jaamu yàlla te moo nekk ci diggante ñaari ngaro yi euh, te ñëpp yegg na ci ñoom ba weranteetuñ ci te sëpp samp na ndënd ñi ko doon ñi ko doon weddi defi te kenn sampiwu ko hmm. mais kooku dafa xaw a mécanique ak man hmm. alquran ci boppam boo ne bismillahi rahmaani rahim alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin alquran donc mooy téere hudan lil muttaqin téere la boo xam ne yàlla daf ko wàcce comme ni daan wàcce ay téere mais comme moo mujj yàlla daf ci confirmer li daan wax yokk ci lam waxutoon tëj ko nag tuddee ko muhayminan lu moolum rek moo ko dominé luñ aju luñ soxla ci diine lépp nag ak li baax ci àddina yëpp moo def ci principe yi nga xam ne buñ ci jaaree loolu yëpp day baax moo tax ñu ne ma farratna fi kitaab min shay euh, bàyyiwuma dara ci biir téere bi ñenn ñi nag foog ne da koy ubbi fekk ci biologie ak ay euh, médecine ak yu ma xamul fekk li mu ci jublu mooy lépp lu soxla daal noo xam ne mënuñ dund sans moom ci diine wala àddina nañ ci alxuraan téere la boo xam ne euh, boo ko doon compter day doon juróom benn fukki xijit euh, di téeméeri saar ak fukk ak ñeent yi gudd ni bàqar yi gàtt ni inaa finakal kawsara mais euh, man gëm naa li Lamartine waxoon bi muy tagg yonent bi mhm. ne téere la boo xam ne chaque lettre est une loi mhm. ndax boo ci roccoon rek amul lu ko mën a remplacer mhm. yàlla rek moo ko mën téere la boo xam ne dinañ ci wax ci kanam mhm. mooy alquran tur wi dina firi jàng dina firi leer mhm. dinañ ko tuddee itam kitaab alkitaab xam nga bu ñu ne alquran juñu bi bu ñu ne alkitaab juñu nañ téere mais juñu nañ kitaabatu bi firi bind écriture moo lay woon ne alquran pour mu wér mhm. fokk ñu di ko jàng te di ko bind te mbind mi dëppoo njàng bi am na sax ñuy wax furxaan furqaan moom ñu ngi ko ko tuddee benn ci turam yu bare yi ndaxte dafa ñëw tàggale dëgg ak caaxaan waaw bari na xam nga arab ci seen aada lu ñu bëgg lool rek utul ko tur yu bare tout comme lu ñu ragal yi itam moo tax gaynde bari ay tur <laughs> gaynde de parce que usamatu incertitude waaw uh-huh. léegi ñu fa demee laaj waa alxuraan yàlla daf ciy wax waaye pour pourquoi waxul benn yoon ndax mu wax mu wàcc en vingt trois ans lu tax 23 ans. waaw xam nga 23 ans moo di alxuraan du téere boo xam ne dafoo ñëw rek pour yokk ci téere yi ci def yi fi amoon. téere boo xam ne li mu wax ne hudan dafa war a jubal képp ku ko gëm. bu kooka jëriñoo sax même ku ko gëmul dina jëriñu ci njëriñal kooka. bon léegi nag surtout boo wàcc bu ñu wàcc rek. Euh, du du du mun a jouer rôle boobu. moo tax muy soxla. laajte day am ويسألونك عن الروح كل روح من أمر ربي ويسألونك عن الخمر والميسر mu tontu ci affaire alcool يسألونك ماذا ينفقون mu wax leen naka la ñuy dundalee donc day ñëw par aaya wala ay aaya wala sax saar bu ko defee alxuraan tontu woon na ci nee na daf ko wàcce li taqra'ahu ala nnaasi ala muksin dama bëgg nga di ko jël ndànk ndànk di ko jàngal nit ñi fekk yaa ngi dal tey yonent xam gi mu xam ne alxuraan mooy battu yàlla bi nga xam ne moo fi mujj te dara waru ci sànku dafa daan def bu wax yi di ñëw rek au fur et à mesure muy gaawantu di ko wax bala ko fàtte yàlla da ko xaaral wala taajal bil qurani min qabli an yuqda ilayka waxyuhu fekk révélation maa ngi ñëw wax yi bi jeexagul bu yàkkamti di ko répété ndax man maa garanti ne du sànku mm-hmm. waaw quranahu wa bayaanahu maa ko garanti dana ñëw ba tasaaro bañ liir ko te itam danañ ko tafsir dana leer booba yàlla rek moo ko mënoon a wax ndaxte boo xamoon force yi doon wax ne du ngeen fi du ngeen ko fi defee mhm. ak force bi ne woon daañ ko fi defee mhm. benn la ak million presque mhm. waaye nag ba ko yàlla ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun man yàlla maa wàcce alquran ndànk ndànk parce que xam nga anzalna ci firim arab bu kii bokkut ak nëzal naa mhm. anzal naa wàcce naa ko mais nëzal naa wàcce naa ko par fragment waaw ah, dafa euh, tafil gi dafa dafa dafa amee maanaam mhm. euh, séddale ndànk-ndànk mhm. loolu nag euh, mu mujj xam nag ni kon day déglu rek nee nag su ma paree rek waqat nuqisha fi qalbi fekk yàlla bind na ko ci suma xol ak ah, muy ñëw nag mu di ko jël di ko joxe ñu am chance itam parce que jamono joo xam ne amul imprimerie amul lu ñuy téye ay bind yu yu war a béeri mhm. yàlla dafa defoon bokk na ci miracle yi mayoon yonent bi ñi ko wër mu jox leen mémoire yoo xam ne alayhi salaatu wasalaam mhm. euh, du du mémoire yoo xam ne jubluñ ci woon dara mhm. ndax ibnu abbas na déglu benn qasida bu amr ibnu bu omar ibnu abi rabia bu gudd benn raay amin ali nu'min anta gaadin fa mu kir bu gudd bañ paree rek mu ne gaañi su ma neexoon léegi ma tari ko da am ku ko ne da nga koo bokkal mu ne ah am na ci yéen kuy dégg dara du ko bokk <laughs> ça veut dire que ñoom ñoo remplacé woon imprimerie yi mm. parce que baatu yàlla moo ko bëggee noonu mm. ñu jàpp ko léegi nag su kenn ñëwoon ne ndax loolu na am mm-hmm. mun nañ ko tontu ci xale yi nekk tey ci Sénégal mm-hmm. huit ans neuf ans dix ans mm-hmm. ak lu ko ëpp tuuti di tari alquran ñenn ñi di ko tari ci ñetti guddi te duñ leen gàccante benn euh, loola moo def lii preuve la moo tax ba mu wàccee dañ ko doon jëfandikoo. Mhm. ndax jàng bi baax na mais nag message bu ñuy jëfandikoo la. jëfandikoo la waaw mhm. ndaxte euh, benn saxaabi ridwanullahi alayhi wa alayhim jamian mhm. euh, doon na nettali. ñoom seen rapport ak alquran boobu. nee na ñun bu ñu jotaan ay aaya ci alquran. bu ñu ko jàngee lam natajaawazhunna xatta nata'allama al amal. fa kunna naqrinu bayna al ilmi wal amal. bu ñu jàngaan tuuti rek dañuy. marque pause ba jàngoon ni ñu koy appliquer ci suñu dund ñun dañ daan boole kon mm-hmm. théorie ak pratique pratique la fois waaye wàccin bi nag léeg dañ ñu dégg ay cloche léeg-léeg ne dafay sukkandu kenn mu diis waaw léegi ñu ne événement dafay xew ba ne ay wàcc. waaw loolu loolu loolu laa mm-hmm. bay ay wàcc laa jiite léegi mais. Mm-hmm. wax yu dafa mel ni mm, daf bokk nu mu daan ñëwee ci rënd. am na wax yoo xam ne bi ci gën a diis nee na mooy dafay ñëw mel ni falsolatul jaxas. mel dafay dégg jiw lu cloche bu naan kalang kalang kalang nee na bu ñaqee ba ñaq wa jeex ba diis wa jeex mhm. fekk mokkal na la ko yàlla doon jàngal nee na am na jëmmi jamono day nekk ci waxtu sedd mhm. bu waxi ñëw ci moom day ñaq bay sotteeku mhm. fekk na ko ci mu war gëléem baat yi nga xam ne maanaa la mujj soppeeku poids boo xam ne dafay écraser gëléem gi ba muy góor foofu nag ngay xamee ne waxu diine mhm. ak loo ci mun di dégg mhm. ak lu ñu nekk nekk ay rationnel mhm. ak ay cartésien foog di ci am séquence yoo xam ne su jot rek nga ciy mën ndax diggante yàlla ak yonent bi ak wax yu diggante bu xat la bu yaatu ndaxte léeg-léeg nga gis nit ku ñëw ci yonent bi nuyu ko wax ak moom laaj ko mu tontu ko mm-hmm. nga xam ne ko ne kii mooy dixyeen xul bi mm-hmm. fekk boo demoon kër dixe fekk fa dixe mm-hmm. naka jibril la moo déguisé mel ni jigéen mooy xadiis Omar ibn Xattaab ba ko doon laaj luy lislaam luy iman luy ihsaan waaw eh, ba mu laajee bay fa jeex mu mu dem gaa yi dañ seetlu ne waxtu yonent tontoo rek mu ne ko wax nga dëgg wax nga dëgg waaw gaa yi mu ne fa ajib naa lahu <laughs> yasaluhu wa yusaddiquhu tubaab bi da leen waar lool. waaw waaw waaw waaw maa ngi xam ne dal ko sonn. daf ne tëlli seen jëf ba demee ne mu ne ool oh, leen ma waaj ñu ne ko dem na mu ne waaw jibril moo leen doon jàngal seen diine waaye nag xam kon mbir mi mhm. am na xel mhm. mais am na itam vraiment mhm. luy jàngal xel su déggatu te fekk mi ngi ci këru dëgg mu su jóot fekk ba muy dégg boroom xam-xam yi wax nag ne euh, alxuraan bi moom lu noppi woon la am fu mu nekk fu ñu ko denc waaw namaat kooku itam ci sunna lañ ko jàngee mhm. xam nga alquran yàlla nii mu mel nii gannaaw bu mu tasaaroo bañ dajale ko mhm. xam nga bu aaya wàccal yéen ci al Muhammad day oo ñuy bind kuttaabul waxyi lu mel ni Zayd ibnu Haarisa mhm. bu ñëwee mu digte leen ko ñoom ñëpp nag ak nag ñeneen ñi mënoon a bind te nekk ci géew bi suñ fa fekkee euh, Zayd rek mu ne suñ demee nag maa ngi ñëwaat ci moom lii relaat ko li ma digte su ma ci amee dara lu ma xaw a saagane mu vérifié ko léegi nag fragment yooyu bu bu wàcc daf naan dugal ko diggante ay sàngam ak ay sàngam kon nag am na teg fi référence am na ordre aussi bu am na ordre boo xam ne ba mu sottee nag noonu la mel hmm. at yële passé amoon na ay jànkat ci Moyen-Orient hmm. yu doon xalaat bind alxuraan te nam wàccee woon Mm-hmm. mais ñëpp dañu jóg ne leen ku réer la mm-hmm. ndax ni ko yonent tari yonent tari na al alxuraan ay yoon mais tari na ko surtout weeru mm-hmm. koor bi bu jowoor ñaari yoon jibril di ko déglu zeeg moom nag dafay xale bu am chance nee na ñaari yoon yi yonent mujj tari yëpp alxuraan jibril di ko déglu man fekkee naa ko am ñu naan fa mu fa mu nekk foofu mooy lawal ma ah, ñu ngi ko tuddee baytul izz waaw yow dégg naa ne baytul izz xamuñ fu baytul izz nekk mais xam naa ne lu lu am ci baatin rek war na am lu ko niru ci zahir alquran bi ak ñu amete ci kàmmi li bàqara njëkk ci wan naa si mujj eh, ba muy wàcc wàcc woon noonu mais ba ko yàlla denc noonu la meloon léegi nag eh, walillahi masalul ala niralewuma lu niruwul mais bu ma xoolee aspect bu toog ci bureau imagine tëral benn building ak la ci nekk yëpp ba mu mel na may mu def ko maquette mm-hmm. damay xam ne nii mu mel ci biti mm-hmm. déjà meloon na ko ci xolam dara mun a génn ma <laughs> xam ne kon yàlla moo raw dëgg la mm-hmm. la am na aussi lu lu may xaw a perturbé ba ci style bi souvent mm. nga xam ne léeg-léeg mun a inaa affaire nakal léeg-léeg mu ne huwa allahu lazi la ilaha illa huwa moi je lui style boobu lu may laaj ko waaw waaw loolu itam waxinu yaaram la ndax alquran dafa wàcce mhm. yàlla tuddee ko quranan arabiyan mhm. eh, alquran boo xam ne dafa ànd ak waxinu yaaram mhm. dina lépp dina kinaaya dina jiital dina mujjee dina wax kenn jublu ci mbooloo et ainsi de suite ana yàlla nag ni ñuy waxee inna comme kilifa guy wax wala nu comme buur buy wax dana ko wax inna nahnu nazalna dikra wa inna lahu lahafidun dina wax inni man kenn mais teddali ko parce que mm-hmm. ana rek amul taddili mais boo ne inni wala inna ni mm-hmm. yaa ngi koy confirmer inna nii ana allahu mm-hmm. mooy ba mu ci noo xam ne yàlla rek moo ko mun ndax Moussa dafa nekk ci désert bi nekk ci épreuve jabaram euh, am doom mu sedd mu toog toog seen safar suy bërëx bërëxi mu dem ne xëy na ma ut fa luñ jaaroo gis fa sax ku ma giide ba mu jub garab googa googa ji matière mu naan ko yaa Moussa inna nii ana illa ana faabudni muy lu réy kon nag yàlla mooy waxee lu ko neex mais mm-hmm. ci ni nit ñi daan waxee mm-hmm. noonu la ko tëral mm-hmm. waaw bu ne inna taxul muy ñu bari moom kenn la bu ne naxnu taxul ñu bari moom kenn la comme bu ne ana comme bu ne inni parce que yàlla moom kennam gi dafay kenn koo xam ne amul amul débat waaw kenn càppacul koo xam ne ñàkk mosu koo jiitu te ñàkk du ko mujj ñu ngi fi ba faw mel lu kenn melul lay si kenn si ndax mën nañu considéré ne léeg-léeg mu wax ak Seydina Muhammad moom wallahu yaxsanu ka min waaw waaw wala léeg mu wax ak mbooloo mi yëpp wala taw naaka ila wala ñu mel noonu waaw jërëjëf alxuraan loolu la euh, waxuma sax yàlla wax ak yonent yàlla Muhammad wax ko kaafu xitaab bi ñuy wax toi ka mais même yow da ngay wax ak yàlla ndax eh, imaam Ahmad ibn Hanbal euh, kenn ci borom ngër yi la mooy ki ngeen xam ci ci ñuy wax sunna Euh, wax na wax bu rafet mu ne man daal su ma nammee wax ak yàlla da mhm. damay dem julli mhm. naan ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sa donc di wax ak moom waxi ko teew te effectivement dafa teew <laughs> mu ne su ma nammee nag yàlla wax ak man ma mhm. dem jàngal <laughs> mu di ma digal xuzu udxulu sallu Euh, boo ko defee kooku xam nga dootu wéet mhm. waaw kon nag euh, yàlla mooy dana wax ak yonent bi tey mhm. euh, même ca rayaan la sax fala ku nekk waxee mhm. nee na asalaamu aleyka ayyuha nabi ba bañ mujj placé ko ci taaya mm, ci taaya xam nga nag yàlla moom li ko li nga xam ne bokk na ci meloom yi mooy dafa di koo xam ne dara tënku ko waaw yafalu maa yashaa nee na ko lu woon neex lay def ala kulli cheyin qadir laa yusalu amma yafalu tawxidu afaal bi ñuy wax tawxidu jëf moo di nga gëm ne yàlla laa yusalu amma yafalu moom yusaluuna moom rek kay def te kenn du ko laaj pourquoi nga def lii ku dul moom nag mën nañ la laaj lu tax nga def lii mu firi ko nag ne wallahu yaalamu wa antum la taalamuun comme yàlla dafa xam léegi xam démb xam lii ñëw te yéen xamu leen wala lu tuuti ngeen xam moo tax ñu war leen a laaj ngeen joxe compte ngeen joxe compte mais yàlla moo koy mooy def lu ko neex mais nag mbaaxam gi ak yërbaade gi moo tax lu ko neex boobu carte ragal ndax du gendarme alhamdulilah ma man euh, sëñ Barham damay faral di dégg rôle yi ñu bëri di joué ci l'islam commencé muy lim saaba yi lim seen jaroole mm. man a xanaa kon loolu buy am kay soxna Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy Khadija mm-hmm. moo fa nekkoon ba mu jot euh, mm-hmm. mission bi mm-hmm. xanaa moom am na rôle bu mu ci joué boobu bu nit ñi war a ah, oui Khadija ridwanullahi alayha man moom laay faral di wax la première dame de l'islam wax nga dëgg même gàmmu dañ koy faral di jox te jigéen ju mag a mag a mag xool rek am na bés Jibril ñëw ci yonent bi ne ko egseegul kër waaye ma nga nee di ñëw amee lekk Khadija yàlla nee na mi koy nuyu bu ñëwee nga wax ko ko man Jibril te maa koy nuyu subhanallah comme yàlla nag mooy moom ba mu ñëwee mhm. ba mu ko ko waxee ba ko mhm. yonent waxee ne jibril nee na yàlla ngi lay nuyu yuquri mhm. ukki salaam noonu lañ ko waxee mu ne mu ne mu ne mu ne fay naa fay naa la fay naa jibril yàlla nag mooy salaam wa minhu salaam alhamdulilah <laughs> bu ko defee jigéen ju mag la euh, te magam gi dafa yàgg ndax ci jaahiliya lislaam ñëwagul jigéen ju mag la aristocrate bu am fayda la daan ko surnommé euh, sayyidatun nisaa Quraysh mooy mooy mooy sangu jigéeni Quraysh yëpp daanañ ko wax sax euh, at-taahira ku laab ku sell ki te lislaam ñëwagul alors bii lislaam ñëwee yàlla def ko dimbali fekk na déjà mu mari yonent bi du yàgg ba mari yonent bi yonent gis na ci moom xel moo xam ne mu gis yonent melo yoo xam ne euh, choc ba amoon ci xaaru Xiraa ñoom ñoo ko gaaw absorbé Mm. yonent yàlla Muhammad daf ko naan yow utal ma yóbbal mm-hmm. ma dem xaaru xiraa yéeg ca kaw boo fa demee rek danga nga xam ne yéeg fa di mm-hmm. caaxaan léegi mm-hmm. ko fi yéeg ndax fañ ñu gaañoo yooyu waaw ba mu bés ba ko yàlla yebale ji la ne ko iqra iqra fi rabbika ak xis ba doon demee yëpp dafa doon lox te wax na dëgg ba mu wàccee ñëw ci Xadija ne ko rag am na lu ma ragal man dama ragal dof Xadija sans mu xalaat wala mu hésité daf ne ko wallahi wala tallahi laa yuxzika allahu abada mun naa waat yàlla ne yàlla du la toroxal mukk sàcca ngay doon wax ko nag critères yi yow da ngay ganale gan da ngay dimbale ku sonn da ngay da ngay garde loo xam ne dañ koy faral di soxla mm-hmm. lii lii lii lii mm-hmm. ne ko nag kaa ñu dem su ma nijaay waraqatu nawfal nga xam maa ngi ci préparé une conférence publique ndax dafa yëngu nit ñi xamuñ ko waraka waaw waraka mhm. bu mag sax mhm. waraka dafa jàngoon mhm. ci ibraniya xam itam diine diine chrétien te boobu la gën a jege cosaan ba euh, mu dem nekk suma euh, borom kër dafa am lu mu gis ak lu mu dégg déglu ko ba mu ko nekk leen bi ma demee dama koy gàttal euh, waraka dafa ne quddus quddus di di waaw di di di di di sotti sotti te ne ko yow lii mooy mm-hmm. naamus boo cun ci Moussa maanaam wax yu ko jógee ci yàlla la mm-hmm. Mm-hmm. mu ne ko su ma fekkee woon bés biñ lay génne Makka dinaa taxaw ba nga xam ne taxawu naa la mu ne ko awa muxrijiyahum man dañ lay génne Makka <laughs> mu ne ko li nga indi kooku mos a indi ci aw nit rek da nga gis ñu la noonu bu génne ndax ndax li téere yi wax ne moom bi muy seeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi amoon quarante ans. waaw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam am vingt cinq ans. waaw wér na waaw wér na vérifié naa ko suuf si yu bare bare tey ci mujj. Mhm. Euh, ngir beneen affaire boo doon wut. Mhm. Euh, Xadijatu amoon na ñeent fukki at ak tuuti. Mhm. Seydina Muhammad am ñaar fukki at ak juróom. loolu mooy wax ju wér leneen lu ñu wax itam. wérul alors euh, boobu. li ci gën a yéeme. mooy jigéeni Quraysh bu xasaan am quarante ans. du am doom. Eh, yéen teel Muhammad tax denc ko mm-hmm. mu jur doomam yépp mm-hmm. jural ko xaasim mais dafa mm-hmm. dee boobu lislaam ñëwagul jëlee ko Zeynab mhm, jëlee ko Roqi doom yëpp ginnaaw Ibrahima euh, jëlee ko Umu Kulsum mhm. jëlee ko Fatima mi nga xam ne ñun moom la ñuy tuddee taaw te mooy caat mooy caat waaw yëpp moo leen jur mhm. te ñoom ñoo jur njaboot yonent te Ibrahima nag euh, ka jógoon Égypte marié ko këppiye moo ko jur mais dafa gaaw a gaañu bisu gaañoon am na jàng yu ca nekk leen ko téye wa nafsuhu tataqaaqa'u ma ngay ajjat Mm. génnanti rongañam di daanu ci kaw mm. am ñu ko gis ne ko yow sax da ngay jooy mu ne jooy ma lu ma yërmande rek mm. dina ma métti mais nag du ma wax mukk lu naqari yàlla xanaa kéemaan la dégg nga am quarante ans am mm-hmm. mm-hmm. nekk maxzumiyatu giir googu mm-hmm. ñoom ñoo doon presque noble yi te xadijatu am na ci loo xam war nañ ko wax euh, bàyyi yooyu moo di yonent bi ay sasam bi jëkkëram ji njëkk hmm. njëkk na sëy abu haala hmm. ama moom ñaari doom ñoo xam ne dinañ ci juum sos ci taarix ndax hind la tudd mais góor la waaw kenn ki xaala moom itam euh, ñoom ñaar la am ci moom hmm. kooku gaañu mu takk ku ku yow atiix takk ko bokk ak moom giir maxzoomi euh, mu am ak moom beneen doom bu tudd xaala kooku itam dee da hmm. dama doon wax xale may leen bu doon Sénégal dootu am jëkkër hmm, hmm, parce que xam nga fii dañu am nit boo xam ne ku suur ñaari ja jëkkër foog nga ñetteel waaw ñu ne da nga ay gaaf wala Xadija teg la dina ko ba mu jógee ci ñaari dëjën yooyu ci la door seeg sayyidul awwalina wal axirin mu bëgg ko mbëggeel goo xam ne nit dina sànq ku ndaw te doo fa yegg yonent Yàlla Muhammad doon na ko tagg ba xaj ba Aysatu lim baax baax baax euh, fiir Hmm, nga dégg ci ne baax tuuti réussir. waaw ay si benn bu seen ay si hmm. bu mag bi rek. bu waaw ba bés nag. Hmm. mu ëpp mu ne yonent jigéen ñi Quraysh ju màgg joxe dem na ba tuñam yi waaj a xonq mhm, mhm. yàlla mu dem yàlla wottal la lu ko gën mhm. waxtu mu nekk di ko tudd yonent nag jóg na ne ko giñ naa ne yàlla joxuma lu ko gën ah, <laughs> ndax ba ba ma nit ñi weddee moo ma gëm biñ ma xàññee moo ma jox alalam bañ euh, te te te te ci moom rek la ma yàlla may doom xam naa boobu ci gën a waaw waaw waaw euh, euh, Aïsatu ci laa nag waatee ne dootuma ko wax mukk na <laughs> alors jigéen ju mag jooju mm-hmm. bokk na ci lu ñu koy compter mm-hmm. mooy moom moo seetlu jëmm jooju ba mu doy ko seetul at yi mm-hmm. mu fexe ba mu loolu ñu bëri us nañ ko am na keneen koo xam ne kii jege woon na Seydina Muhammad ci def sama yaakaar waaye taxul tamit su boor yi ñu xam ko lool mooy mooy Bilal ah Bilal ibnu Rabah Bilal ibnu njëkk tuub la bokk te itam yonent Yàlla Muhammad Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Ammaar Sumayya yaayam ak Bilaal moomu ak Xabbaab ibn al-Arat juróom-ñaari ni ñooñu taarix nee na ñoo a siiwal lislaam ci Màkka donc kon sonn nañ xam nga ndax boobu Màkka dafa lëndëm mm-hmm, mm-hmm. waaw kon Bilaal image bi ngay faral di fekk ci maanaam nit ñi waaw nan nit ku ñuul ku nekkoon ci biir nit ñu weex dañ koo xaw a peggeel du loolu dëgg la Bilaal waa Éthiopie la ñoom it màkk la juddoo mhm. banu jumax nga doon ay sangam ba ko bañ koy échanger xam nga nañ ay ay waay juram ñu gën foofu ay waay juram sax ñoom xam nañ ne rabaax ay baayam baayam lañ xam waaw mhm. xam nañ xam nañ itam yaayam xamaama la tudd ñoom ñaar ñëpp dañu ñuul waaw mhm. dañ leen moomu foofu ñoom ñëpp mu juddoo fa nag mais bi ko umayatu ibnu xalaf di moom moo tombe rek yonent ñëw mu gëm ko ñu ne ko nag foog nga weddi te xam nga xol foofu foofu euh, zone zone franc la franc mhm. boo xam ne <laughs> zone franc boo xam ne mhm. Mhm. Euh, kenn eggu ca euh, jëm nañ ko mbugal ñu gis ci loo xam ne am na sax ñu ciy gis caractère Afrique ndax Ammar ak Bilal lañ doon mbugalandoo su mbayee dañ ko rey Mm-hmm. mais Amar ba ñu ci métti dafa ànd ak ay wax lañ koo doon sant. Mm-hmm. xas yonent mm-hmm. daw ñëw yonent ne ko même buñ la dóoratee xasaat ma du la wàññi dara. alxuraan daal di koy saxal ci benn aaya. Bilaal nag dafa réussir. liñ koy dóor yëpp ak liñ teg xeer ci koom di ko wattat xale yi sax di ko foyee. ci diggante xeer yi. moom benn réponse la am wala ñaar ahadun ahad. Ah. wala allah allah. ba doon na wax allah allah ba waraqat moomu may wax um mhm. noppal boobu dayagul mhm. romb ko ñu koy mbugal mu naan allah allah mu taxaw ne ko giñ naa ne mhm. boo dayee ci lii ñu lay def ci nga dee buñ la ci suulee dinaa ko def muy par bu ñu barke la alhamdulilah <laughs> ku mag la bu ko defee nag yàlla may ko lii moom xamuñu bëri dañ naan mooy noddal yonent bi mais du fonction moom kenn moo mooy mooy mooy mooy intendant itam mooy dañ ci lig eh, lekkam mooy dañ ci naanam mm-hmm. moo amee dokkam bi di ko jiitu mm-hmm. mooy nag bi moo koy jottali mm-hmm. yonent mësta julli benn yoon te Bilaal nekkul ci gannaaw te la gënee ñu bëri moom lottu na ndax ndax gëm gi mu gëm seen amat gëm gëm boromam ndax lottu ndax ndax der bi mu am la au contraire dafa raw ñu bëri ndax moom d'abord l'islam ci boppam li mu njëkk daane que parce que dafa duwul dëgg te lislaam di dëgg te dëgg ak lu dul dëgg mënuñoo ànd mhm. mooy jéem a seet mbaaxu nit ñi mhm. ak seen ak ràññeeku mhm. ci kaw rek ni seen der yi mel ndax yonent wax na nit ñi ne leen yàlla du xool seen yaram yi ak seen melo yi mais seen xol yi ak seen jëf yi alquran ne inna akramakum inda allahi atqaakum ku gën a fort yàlla mooy kii ku gën a ragal gën koo bugg kon nag bilaal bañ koy mbugal noonu mhm. yonent bi ay sasa ko romb mooy sonn te munu ci dara mhm. te Aboubacar itam yéen daje moom ne ko kii day ñu ngi koy sonal rek mhm. euh, waraqatu romb fa euh, bañ koy waxante nag Aboubacar fa ko jënd daal di koy goreel moo tax sax gannaaw gi bokk na ci euh, maanaam médaille yi Bilaal am Sidna Omar mi nga xam daan wax naan Abu Bakrin wa ataq sayidana aboubacar mooy suñ sang ñu ñëpp te itam moo goreel suñ sang nga xam ne kon ak sang booba nekkatutoon kii jur la wala nga am lii mais ay melo la yoo xam ne dañuy wax ne booy sangu sax doo mën a tàggoo doo mën a tàggoo am na borom xam-xam yu wax benn sonn ma sa sonn ci daram wala de loolu am na benn bésal ci Medina boobu lislaam nekk na fukki at ak ñett ci Màkka ba nga xam ne ñëpp xamante nañ xam ne yàlla miin nañ ko miin nañ yonent bi bañ nga day bés xuloo nit ak nit Abu Zarrin mer ne ko yab na sawda yow doomu nit ku ñuul kii jigéen kii yeneen ci dégg baat bi rek mer ba mel ni dañu teg tamaate ci bëte bi ñëw ne ko tuayiruhu bi ummihi da ngay xas nit rek parce yaay nii la mel ci couleur mer ne ko ne ko topfa saa topfa saa lal ci ñun mooy mooy mooy mooy too much dëgg la ba parce que kaas bi fees na nag bay tuur wa innaka mru'un fiika jahiliya yow ba tey ndekk yaa ngi defee ak ceddo kooku nag ci daal di tëdd teg loxo lexam ci suuf ne Bilal sa karbat yi dëgg ma ko sama lex bi pour yàlla baal ma Bilal ne ko baal naa la jox donc Bilal loolu nag xam nga ci ay nit moom day am nit dana mer fekk duut ku bon waaw mais nag bu dul loolu je crois que c'est la seule fois ndax moom par exemple da gis léegi bu ñu demoon ci biir moom ak kii ko yónnentu boole woon na ko mooy sa mbokk mm-hmm. ba ñu gàddaayee xam nga dafa doon par deux par deux moom moom moom ki ñu ko boolee toon mm-hmm. euh, dafa ànd ak moom di labat jabar ñoom ñaar mm-hmm. ñu ne ca daariya ca ca Cham ba ñu ko wàccee mu ñëw rek ne leen maa leen di nuyu man maay Bilaal kii mooy suma mbokk ci lislaam euh, dañu réeroon yàlla jubani ñu sànk woon mu gindi ñu mhm. ñu ñàkkoon mu am may ñu mhm. léegi dañ ñëw pour labat seen ñaari doom bu ngeen ñu mayee mhm. alhamdulillah su ngeen ñu xañee allahu akbar gaa yi may leen ah est-ce mel ni moom maanaam. kon bu la amoon soxna kon moom li ñu am na soxna. Euh, li ñu jaaxal mooy am na soxna am na texte bu ko confirmé boo demee ci usdul xaaba. bu asqalaani ibn Hajar moom moo la koy wax. ñoom amoon na soxna. am na soxna. Mhm. mais amul doom. amul doom mais nag amoon na frère mhm. boo xam ne ma amoon na itam sœur. Mhm. waaw. frère am ma ngi koon ak sœur am bu tudd Rufayra. ndax li ñenn ñi di wax ne mën lu woon ashadu. loolu wax ashadu loolu lu wér la. waaw mën na am ndaxte xam nga ci benn xeet sax. Euh, ay olofike sax dina am ku mën raa am kuy wax laa. mën na am xëy na mënul ashadu. ndaxte ay baat nga ci arab yoo xam ne mhm. yombul mhm. baat ak po ak va mhm. ak chine boobu am euh, du ñëpp la yomb waaye nag tabax nañ ci benn xadis boo xam ne ulama yi nee nañu wérul li ñuy wax ne yonent daf doon wax ñi ko doon reetaan naan euh, euh, siinu bilaalin siinu bilaalin bu amul tam bu indallahi siinun waaye même bu dul xadis itam maanaam wér na Mhm. ndax kuy nodd amoo benn sikk lu rek baat bi mënoo ko tudd parce que Bilal moom moo njëkk a nodd mhm. te nodd nam ñëwee xam nañ ko xaju fi mhm. te itam noddam googu daf koo jox ngëneel ma ne mooy julleeg yonent bi ci la ngëneel yam mosu koo tardé kumoo kumu da nga julli sof Bilal kon sin si ak ak boobu wéerul waaye li mu ko waxoon ne bu ma duggee àjjana yaa ngi sama kanam waaw loolu moom ci ngëneeli Bilal la bokk ku bëri ngëneel loolu wéroon na moom ndax Bilal su ma not yéen ma fekk ci sama bibliothèque yi yàgg yàgg mhm. gis naa ne mhm. euh, yonent nee na ko bés waa Bilaal bi ma sabaqtani ilal janna mhm. waa ci lan ci lan nga ma jiitoo aljanna ndax waxtu ma duggee aljanna rek il faut retenir baat boobu ma dégg sa karbat yi ci sama kanam yu déggee ci ne ba tey yi ma doon fa séquence yi nga xam ne boo ci eggee ci taarixul islam sujjóot rek Mm-hmm. ndax ñun ñii ci biir màkka ak xeer yooyu ak jant boobu yëpp mm-hmm. mm-hmm. xeer yonent day dugg aljanna ak génn kenn xamul foo jànn nekk mais lu wax mooy dëgg alayhi salaatu wasalaam wa maa yantiqu an il hawa in huwa illaa waxin yuuxa bilaal woon ko daal ne ko ma de xaw ma lu ma def lu ma war a ràññi waaye xanaa daal lenn ku fonk njàppalaa su ma njàppalaa buy toj rek may may jàppaat te bala ma faa jóg julli lu mu néew mu ne ko loolu la muy beneen leçon ku bëgg a jege yàlla mhm. te ñu digle aljanna mhm. fonkal laab mhm. te fonkal julli ndax julli mooy buntu aljanna alors euh, ma crois que Bilal am na lu ma fekk ci moom euh, lu doy waar parce que moom euh, dafa dafa bi bi génnee àddina sallallahu alayhi wa te moo ko daan noddal dafa tàggu Abu Bakri ndax lii bir na fi mu ne mais Aboubacar la du fàtte ne moo ko jëndoon mhm. euh, pour daal bàyyi léegi noddu mhm. dem Saam mu ne ko lu tax mu ne ko yonent daf ma jàngaloon man mais mhm. li gën ci jaamu yàlla wala bokk na ci gën ci am mooy jihaad fi sabilillah dama bëgg a dem ci frontière nekk fa bali de suñu dund Aboubacar lentul na ko sax ci ngënee la mag xaqam mu ne ko daal su fekkee ne dañ ma jëndoon euh, goreel ma ngir yàlla bàyyi ma ma dem mais bu dee pour sa bopp nag bu leen defee nga téema bon ñu ne bàyyi na ko ñu ne faf na fa toog après noddal Omar tuuti tàggu ko dem Omar bañ mu dem mu dem mais nag fi ngay xamee ne noddu Bilaal du lu tuuti ci saaba yi parce que dafa nodd nodd la ba pare tawxiid la te lu la mais itam dafa am dafa am souvenir bu mag bu ci nekk ndax yaa ngi ko xamee benn benn bés ba Omar ñëwee Jérusalem Cham ko fekk mu noddal ko mm-hmm. euh, ñu ñëpp di jooy Abu Ubayda mm-hmm. sax moo ci rawoon mm-hmm. mais nag Bilal yàgg Saam nag nekk ci nekk ci garde frontière ba bés nag mu géwante gis yéen ci boppam ay salaam naan ko Bilal lu tax nga nga nga nga gàddaay ma nii yow gëj nga fi di te moom mu tiit na waar façon dem ba egg Medina guddi la egg dem ci xabru boobu amul tabax xam nga di ceex xalangu di jooy noonu Xasan ak Xuseen la tëll mu di leen tàpp ci boppam di leen foon digal ñoom ñaar nag ñu ne ko dañ bëggoon daal nga nodd fi saxar noddal ñu ci njël Bilaal nodd fekk ni ñu yeewaguñ ko ñu ne ba mu ne allahu akbar rek ñëpp ne bëri góor gi mu continué nodd jigéen ñeeg ñi daawul génn soo génn dëkk bépp di dangoo ngir fàttali ko yonent bi donc jullit ñi mhm. ay nitu tawxiid lañ mhm. ay nitu jihaad lañ ay nitu xam-xam lañ mhm. mais ay nitu sentiment yu wér lañ parce que jooy mbiru sentiment la ak fàttali ko abdoulaye moom noddam googu bés gis naa mu nodd ci bés bu sedd nodd ba pare yonent rek moo ñëw si jàkka ji mu ne ko biraal ana nit ñi mu ne ko sedd bi leen téye ko allahuma azhib anhumul bard yàlla musal leen ci sedd bi Bilaal ci boppam moo ñu moo nekk gannaaw gi ñoom ñëpp yonent doon ñaanal sedd bi bàyyi leen dama leen gis ci sedd bi ñuy julli di upp ndax <laughs> fànn subhanallah subhanallah ñu ñu alors mm-hmm. ma ma nga dee sàmm nag ma nga dee sàmm léegi bu ñu ñamee ci suñu sujet bi mm. maanaam daal islam ak ak jamono ak jamono la am ak progrès yi am léegi mm-hmm. islam ak recherche yi am léegi. Mm-hmm. yow noo ko gisee loolu. waaw man daal dama gis ne. Mm-hmm. d' abord l' islam xam nga li mm, xam nga yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam mm-hmm. euh, comme yonent bu ma sa ñëw. yàlla daf lay yóbbalee lu mel ni ay miracle bu mel ni dafay wax ne li nga wax dëgg la. moo tax xam nga li ñu tuddee karaama ci nit ku baax ku yàlla terale benn jëf ju kéemaane ak lu nekk miracle xam nga seen différence mooy kii moom. dafay wut sax bu gisee ni am na karaama boo xam ne xëy sax moom yëgu ko wala yëg na ko hmm. yonent nag dafay miracle bi day am mu teg ndënd def taxaddi defi ku man defal hmm. alxuraan nag moom mooy mojisaam mooy mooy miracle am bi nga xam ne moom du fi jóg importance hmm. xam nga miracle yu yëpp yonent yàlla bu yonent yàlla Isaa di wéral ña dee ak ña feebar ak dekkal ña dee ak ak mbooleem yi nga xam ne yëpp xew na ci ay miracle euh, yu ñuy làmb mm-hmm. kum neex tey nga weddi ko mm-hmm. ndax fekkee woo ko te amul preuve tey mm-hmm. mais nag alxuraan nag li tax mu am solo mooy moom moo gisee la boo xam ne du fi jóg waxtu ne yaa ngi koy consulté man dox naa ba gis kaamil boo xam ne saab kenn sahaab yi moo ko bind ci ci deru gazelle ñu ñu wulli nii la yem Hmm. amul tomb amul masque amul suqi hmm. mais bu ma ubbi rek lire muy Bimbaay Souvenir benn dara manqué hmm, alors nag mojise boobu nag nga xam ne alxuraan li tax mu nekk mojise boo ko seetloo d'abord ki ko recevoir mënul lire mënul mënul bind yàlla noonu na ko fekkoon ne danga doon bind kon ñu ne intellectuel bu jàng la teeguñ ko gaa yi ci suuf banaan ko am na jigéen ji ñuul ji daan jaay gerte caaf ci wetu safa gis nañ boo forom boo di ko nuyu noonu rek moo la jàngal yi ngay wax <laughs> yàlla dina reetaan ne innama yuallimuhu bashar mhm. alladi yursilu ilayhi ajamiyun wa a lisanu arabiyyun mubin yéen ki ngeen wax sax làkk la déggul arab naka lay jàngalee nit ku mun a indi alquran yu mel donc alquran mooy mujiza bu mag mhm. dégg nga mhm. ba mu nekkee ne mujiza nekk miracle ñoom njëkk a nërmal mooy ñoom Abu Jaal ñooñu ak ñoom Waliid ak Aasim ibn Waa'il ñooñu nga xam ne ñoom xamoon nañ yonent wax na dëgg mais ñoom seen intérêt leen taxoon a bañ mhm. euh, alors dañ ko daan wax ne da ngaa fasaa éloquent rek rab wax mhm. wax ne alquran la mhm. mooy leen yàlla ñoom baax na moo ko rab ngeen ne arab dañu yéen rab leen alquran bu mel nii waaw defuñ ko mu ne rab leen ba fukki saa mooy mhm. rab leen ba mhm. benn saa dafa mhm. ko alxuraan nag wax la nga xam ne moom itam ci boppam miracle la fa in lam tafaalu walan tafaalu fattaqu naar su fekkee ne lii ñu leen leen ko takat du ngeen ko def mukk xam nga lan boobu ci arab surtout li ni ko Zamakhshari yi waxee mooy lan boo xam ne lu mu dàq rek dootu sax c'est-à-dire que ba àddina tukki du am benn nit bu defee alxuraan def lu mel ni moom wala benn saa ba léegi amagut waaw te du am mukk mooy mooy miracle mais nag miracle littéraire boobu mhm. dafa lamboo yeneen xeetu miracle ci biir alxuraan wax na mhm. yu passé woon mhm. mu révélé ko mottali ko corrigé ko au plan historique waaw alxuraan wax na ci li teew luñ xamutoon wax na ci liy ñëw bu ñëwee ñu gis ne loolu wér na wax na lu ñëwagul donc mhm. yàlla mi nga xam ne amul démb mhm. amul ëllëg mhm. ndax moom dafa tiim espace tiim temps subhaanahu wa moom moo mën a waxee noonu day booy jàng alxuraan da nga seetlu ne si jullu alxuraan xam nga lu kéem lu kéem yàlla day wax ci président ba mu yàgg rek mu ne carax ci luy ñëw wala ci lu paase Euh, wala muy wax ak góor ba mu yàgg mu wax ak jigéen mm-hmm. yusufu arid an hada wa sarri li dam dikki parce que yàlla ñëpp a yem ci moom mm-hmm. Mm-hmm. jamono tënk ko bu ko defee nag miracle boobu nam ko doonee ci côté littéraire noonu la ko doonee ci mbiram histoire rek wax xabaar yowbu ba pare doon ko itam ci mbiram législation lu ne nam ko tëralee rek lu mu yàgg yàgg yàgg yooyu ne ci denc mosu dal comme comme léegi ba seet ci plan scientifique waaw loolu foofu laa jëm foo ko jëm waaw man xam nga miracle su alxuraan ñëwoon ba ci jamono jii mhm. te yam doon wax mhm. du mbir mu yàlla wax mu am mhm. wala sax yonent même ci ci ci ci xadis xam nga ne kon bi nga xam ne ak bi criblé nañ ko kooku suuf science avancée ni mu avancé xam nga du baax mais nag science liñ ci xam ci penku ba léegi musta am mukk benn vérité coranique ak vérité scientifique waxuma théorie de waxuma postulat boo xam ne dinañ mbëkkante mukk ci àddina ñun suñu théorie mooy alxuraan wax yàlla la mhm. univers bi jëf yàlla la mhm. munuy nekk en contradiction mhm. mais nag problème am na léeg-léeg benn faqihu wala benn aalim wala benn adib moom mun naa gëstu gis loo xam ne moo ko tuddee xaqiqa quraaniya mais nekk gu ko waaw ah, nekk moom mooy xalaat rek moo maanaam du yaqiin boo xam ne moom ñëpp d'accord wala Euh, lu ñu tuddee science nekk gu ko ay théorie la ay mbëkkante ñëw foofu nag mën na am taqasuf mhm. mais nag lu wér lii ak lu wér lii bu ñu dajee wér rek lay gis léegi nag ñu gis ne mhm. ñu gis ne mhm. euh, euh, dafa yaatu ba nga xam ne depuis année vingt ba surtout léegi dafa am léegi ay scientifique yoo xam ne amatuñ sax complexe boo jëlee ko mel ni Keith Moore nga xam ne ñëwoon ne fii sax suñu invitation daje nañ moom fu nekk ci Canada tey bu fekkee ne embryologie am na xutbu moom lay nekk ci Europe ak Amérique moom ah, moom moo toog fii biñ paree moo toog ak ñun ñeent nit mu ne ñu suma équipe fi mu ne ñu ngi étudier alxuraan ak xadis pour génn ci ay yu bees pour l'embryologie ak boo xam ne mooy gën a wér ñun ñu amoon man ne ko loolu nu mën a demee mu ne ñun ci phase yi si di jaar ba koy juddu mhm. médecine yëpp ay phase un deux trois lañ xam mhm. mu ne alxuraan nag day tudd phase bi mhm. décrire ko utal ko tur mën na ko niki lan mu ne par exemple boo ne wa laqad xalaqnal insaana min min naa min min tiin summa ja'alnaahu nutfatan mu ne nutfa gudd boobu nam ko waxee noonu la mel mais gudd bi ci boppam wax na ne dafay mujj nekk alaqa mhm. alaqa dañ ko firi lumb mhm. mais alaqa ci wax yaaram dara luy accroché la bu dëgër ah, ah, waaw léegi nag ba ñu ko ba ñu jëlee le picc ci biiru ndeen ci marxala boobu mhm. ci ruxumu ndeen bañ ko foto réel ko ay jinne yoon dañuy gis ne boo jëlee ci te mbalka vert bu naturel ak ak boobu dafa mel ni benn bi te mu nekk tudd na ko décrire na ko mudra mhm. par exemple mudra mhm. xam nga mi ngi mel ni mooy suux lañ koy firee suux waaw mais mudra mhm. nag mi ngi jóge ci mabaxa yam daxu sàqar mi na alors nag loo bu ñu génnee nag euh, fii ci ci boobu ci stade boobu buñ ko réelee dafa mel yow mu jël benn pat manché ko sa bëñ yi alors muur ci boppam nga xam ne tuubagul ci liñ rek moo ma ne alxuraan ak xadis bi dañu mujj jox ay concept d'embryologie yoo xam ne ñun moom la ñuy remplacer dinaa la abal téeréem bu mag boobu mu tuddee human developing ñu boole ci islamic additions yoo xam ne xadis yi ak aaya nga ca ñu mool ñu traduire ko ci fukki langue ci àddina doy waar alhamdulilah léegi ndax yow nga encouragé yooyu recherche yaa ngi wax léegi nutfa mhm. wala ñuy wax euh, maajal bahrain boobu mhm. euh, ndax di nga yooyu walla mhm. am na euh, ay ay école manaam yu opposé wu ci yooyu recherche waaw waaw c'est-à-dire depuis l'islam ñëw léegi toujours da nga dajeeg an nafsi ñi nga xam ne ñoom texte bi rek ak nañ ko déggee bu ci jéem bu ci da nga am yoo ñoom ah, dañu ko dañ ciy xalaat ndax alquran dafa def tëskiir pensé muy farida ci lislam mm-hmm. mais nag du pensé ku ne du ci lu mm-hmm. ak ci jënd yàlla ji na nga tey gëm mm-hmm. meloon mi nag nga jëm ci xalaat léegi euh, euh, am na ñoo xam ne dañu ne bul ut fu science daje ak alquran waaw ah, bul ko wut daal bu ko wut c'est parce que science dafa mën a soppeeku waaye nag science dafa mën a soppeeku kooku wax ji woyof la lii ndaxte gisoon nañ ci benn dëkk du ma ko tudd mhm. ilimaani jumaa boo xam ne bi gaa ñiy dox ca weer wa di tëb di dal mhm. mu ngi xutba naan dañuy fen demuñ fen mhm. te loolu ragal yàllaam ak façon fonk lislaam moo ko ci dugal boobu am na ci Sénégal sëriñ boo xam ne mu ngay bind euh, arrida bil qada fi ghazwil fada di ko dëgëral kon nag euh, léegi am na yoo xam ne daje buñ ci dugg mais li ma bëggoon ñu wax mooy ku xamul bu ci dugg bu ci dugg mais nag équipe bi ñëwoon fii ay mhm. égyptien ay saoudien ay ay américain mhm. comme Marcel Johnson mhm. ay canadien ñëpp ñu daje euh, nga xam ne dañuy teg aaya bi indi science déglu nit ñi alors te nekk ci depuis fukki at ak nangam loolu mënuñ koo aaye moo tax ñu ne bul forcer wax loo ko lu benn théorie scientifique wax mais bés boo gisee science bu sax ba wér ni ki barrage yooyu dox diggante ndox yi alxuraan ko waxoon bu yàgg yàgg yàgg mm-hmm. am na ñoo xam ne tey loolu mooy seen matière mm-hmm. lañ tuube am na par exemple koo xam ne bi bi ñuy jàngee ci kanamam mm-hmm. yàggul sax alif laam miim ghalibatu ruum fi adna al ard mooy xeex bi amoon diggante persan yi ak romain yi ah. xam nga persan yi comme ay cedd la ñoon di jaamu xar euh, xërëm yi ñoom donc ay chrétien jullit ñi dañu dañu meroon ci liñ liñ dàq romain yi waaw ba alxuraan sa wax ne romain yi daa ñoom dinañ dàqaat mhm. ba am ci ñu ci wuree macha allah mhm. alors nag mais baat bi ci glissé noonu mhm. nga xam ñu ko daan firé suuf si gën a jege ndekete ci addinal ardu itam mën nga ko firé foofa ñu doon xeexee mu tolloog lak tabariya moo gën a suufe par rapport ak euh, géej gi boo jëloo sa atlas am am na kat am na Thaïlande boo xam ne looloo ko tuubloo dafa bari nag moo tax mm-hmm. euh, foog ma laaj sama bopp luy miracle scientifique bi ñuy wax. waaw miracle dafa mel ni miracle science. Mm-hmm. ñun gisuñ ci science miracle ay gëstu la ak ay mm-hmm. preuve mais nag liñ ci jublu mooy miracle coranique domaine science. domaine dafa fees dell ak luy géej sant asamaan ngelaw. nit am biologie nangam nangam nag yooyu nag ay sujet science bu ci alquran waxee depuis junne at ak nangam. lu ñu vérifié tey dem dikk dem dikk ay lay wen nii dara mënu koo wen mm-hmm. mm-hmm. bi kay sax nee na li ko yéem ci alxuraan mooy suy avancé ba mu yàgg su waree taxaw rek day taxaw moom ci waxee lu nit dafa ne bu bu continué woo rek musiba am mu taxaw waaw man fàtte na li yàllaay wax <laughs> donc man pour man li ma gis mooy mm-hmm. euh, euh, maanaam benn fànnu gëstu la bu bees boo xam ne ñi ciy gën a jëriñu pour man incha allah mooy ñii européen ak américains yi ak ñi nga xam ne ñooñu am nañ ci influence te jànguñu l'islam mm-hmm. parce que alxuraan ku ko mën a jàng ci arab rek mm-hmm. déggu ko rek mm-hmm. yow yow li nga bàyyi rek alxuraan uh-huh. dina la yóbbu aljanna uh-huh, alhamdulilah naka laay waxee nit ku nekk ku ma dajee ca Manhattan dégg nga dundam bi yëpp mi ngi ci laboratoire ma bëgg koo wax ne ko alxuraan amul morom walit ba mu ko déggee dafa sujud du sotti mais nag lam nekk moom su demee ba pare ba wet ci wecc ñaqam mhm. nga ne ko déglu ma nag pëgg aaya bi bu dugg ci biiru jigéen di def ay détails mhm. di wax ay ñetti lëndëmaki mhm. di wax euh, ala loolu rek moo ko mën a jël su ko defee nag ku dégg alquranu arab wala ñu firil la ko baax na ku ko xamul science bi nga doon waaj a jaamu soo gisee alquran mbëkkantiwut a science rek da ngay di xam ne kii tam créneau la boo mën a jaar pour jëm waaw ñuy bari tuub nañ Mm-hmm. tey jamono ji mm-hmm. ay ay professeurs yu mag ñii mm-hmm. yëgal nañ ko nit ñi ñii dañ koo nëbb ngir gis giñ gis ne alxuraan ku titi la comme génn nañ koo combattre mais ndeketoo yu mi ndax mën nañ jàpp ne euh, euh, science mooy ñëw xëy na di renforcer alxuraan mm. waaye alxuraan moom toppawul science moom dafa nekk noonu rek waa def naa sax di ñaar ñëpp la uh-huh. parce que d' abord alxuraan fàttalikul ne euh, aaya bi njëkk wàcc impératif bi njëkk a jëm ci yonent bi jóge ci téye yàlla mooy iqra jàngal fekk pourtant naa na julli si wax ko salli mm-hmm. naa na sarxe wax ko tasaddaq mm-hmm. naa na aj wax ko xujja mm-hmm. dafa njëkkee ci commencement bi nga xam ne bu ci bokkul dara du baax iqra bismi rabbika ñu ngi ne jàngu jullit su fekkee ne appliqué na li ko wutee jàngu profane mooy dafay jàng bismi rabbil alamin su ko defee buñ ci nekkoon dinañ jàng lu am njëriñ mhm. lu am njëriñ ci nit te mhm. jàmmay am ci ko suuf mhm. mais nag jàng boo xam ne yàlla bokk ci mu nekk science sans conscience mën na mën na bàyyi ñuy xiif mu defar bomb boo xam ne day rey nit ñi bàyyi fi tabax waaw ah, léegi nag am na ay école ci boo demee Makka euh, am na lu ñuy wax euh, hayatul i'jaz al ilmi ci digg cinq mondial dafa am benn département bu mag tey ay professeurs yu mag bi ci nekk ñuy gëstu nag am ay règle foofu nitu science pure yi ñooy ànd ak fuqaaw yi ak mufassiroon yi ñuy dimbalante te nag texte bu génn balañ koo publier dina wër fu nekk ci kon mën nañ jàpp ne gëstu yooyu ci alxuraan foofu la gën a bari wala fan la gën a bëri am na foofu am na Égypte am na Indonésie am na man sax man kaset yi ma mujj a jot mhm. xam nga miracle scientifique mhm. séminaire bi fan lañ ko defee mhm. ci Moscou ci benn amphithéâtre bu tudd Gorbatchev maa la ko wax kenn mësul gis loolu hmm. jullit ñu ñëw ak ñu dul jullit parce que hmm. langue yëpp la déggee euh, nga xam ne ku ko waxoon ñaar fukki at yi passé dafa mel déggee lii ñëpp koy dégloo kon nag maa ngi fàttaliku hmm. ci mai 68 man Paris la ma fekk tuuti sax su benn bi ci écrasé woon <laughs> am na lu fa doy waar lu kenn uh-huh. nettali woon uh-huh. uh-huh. ay groupe xamul lu leen merloo dañuy dugg ci benn église fekk ñuy ñuy ñu arrêté leen am na benn tableau kenn ci ñoom bind ci tableau bi Nietzsche est mort signé Dieu xam nga nit dafa waxoon ne jëye moom maanaam kenn dootu ko topp ñu toog ba léegi fàtte ne nit ñi ñaa ngi topp yàlla alors église baa ngi nii ci digg kon nag kon yàllaay <laughs> benn nit mas na wax ne am na yoo xam ne ay symbole te dañ ko xam par exemple asamaan hmm. ndax sama ci arab mooy ci kaw rek voilà voilà may ma tuuti ma xam ne kon li nga waxoon léegi hmm. kon nag alxuraan hmm. dawul ci ndax dafa ne jàng leen gëstu leen ne xam-xam amul fu mu yem science itam mhm. luy résultat wu science tey mhm. buñ ko appliqué ci daawal islamiye ak ak l'islam mhm. daf koy dëgër moo tax ma ne ñu bëri gëstu nañ ba tuub dafa gudd ba nga xam ne tase naag benn famille boo xam ne kenn ci ñoom dafa retraité euh, ne dafay jóge France dëkk si Sénégal ndax sa femme est sénégalaise euh, mbokk ma yaa nga fa am nañ trois générations nekk ay jullit bind ay téere ci Paris te kenn xamu ko même quartier bi ñu def loolu nag dafa bëri fi dafa bëri fi waaw léegi nag nuurun alaa nuur. alquran mhm. ak science. waaw moom dañuy dimbali. waaw symbole yi nag comme symbole yooyu yi nag ndax ñu ne xam jox juróom-ñaari asamaan. waaye xam nga ko dégg daal. waa kañ ma dama yaakaar ne. Euh, lu ci nekk xay bu duñ mhm. ci avancé mais nag mhm. baatab asamaawaat. waaw niroowut ak baatab al ard. ndax ard moom benn la samawaat pluriel la al arab moom li ñu lay wax ci fiqhu mooy kullu ma alaaka fa huwa samaun lu la tiim rek mhm. sa asamaan la ndax sama yasmu sumu woon wala mhm. samaan mhm. mooy yëkkatiku na tiim na dem na ko bon mais nag sunna wax na ci alquran al wax na ci asamaan alquran itam wax na ci ay asamaan wax na fa juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf mais ñu bëri seetlu wuñ ko seet leen ko juróom-ñaari suuf ndax dafa ne juróom-ñaari asamaan wa min al ardi mislahunna ah. ak seen kem li mi ci suuf kon nag est-ce que ay tabaqaat la yàlla moo xam man su ma doo bu ni doon sob solu dangay mujju mujj jaaxle ndax boo nekkee Paris mm-hmm. ndax boo xoolee asamaan si ngay gis moom la waa Japon di gis wala wala kaw na bi du golob bu ay asamaan bu asamaan ci bor bu nekk la mais ñun liñ ci intéressé mooy muy asamaan muy suuf muy jaww muy galaxie muy luñ xamul mhm. yàlla ko bind mhm. sama yi dañ ciy découvrir mhm. mais kuy découvrir lu fi nekkoon ngay découvrir moo tax alxuraan boo koy déglu dafa mel ni kawnu bi amagul sax fu mu yem ndax ndax daf ne wal arda fa ni'mal maahidun jërëjëf xam naa ne lii moom kenn mënu ko jeexal waaye su ñuy jeexalee hmm. damay laaj souvent sama yenn invité yi yow alxuraan da koy considéré comme comme code comme hmm. ay règle ay conduite comme code la wala yooyu hmm. wala yaakaar nga ne daal bu ñu ko defee fii di ko jël di ko naana ko laal ko takk ak ñaane loolu mën na am wala mënul am waaw c'est-à-dire d'abord alxuraan sànq ceeb ba ñuy door wax naa leen moom nee na ci boppam hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin lu ne nee na lam la ci jox moo a jub li la ci yi Mm-hmm. donc boobu moom def na preuve mm-hmm. ndax nation boo xam ne amuñu diini amuñu moral amuñu mm-hmm. état nga ñu yëkkati leen ba ñu yegg ca jamono joo xam ne ci àndulul xam dara ci science foofu la ko jàngee ci biir école yu jullit ñi donc boobu moom kenn warantewu waaw léegi nag est-ce que alquran à part lim nekk hudan lil muttaqina njub pour képp ku ragal yàlla ndax itam am na barke daañu ci barkelu ndax am na yeneen utilisation waaw waaw laaj googu yomb na jafe na parce boo seetee li nit ñuy def yépp ci compte alxuraan boo ko tegee dana la wóor ne pourcentage bu ci mag a mag a mag du dëgg te amul njëriñ waaw parce que lu lépp lu nit def te wérul moom loola mënoo fexe ba wér mais nag buñ demee ñun ci cosaan buñ mun a layal ci sunna ak ci alxuraan alxuraan dama ne ankañ kot la mhm. mais itam barke la barke la fu ma ko jëlee bankal mhm. Abdullah ibnu Abbas anhu mhm. xam nga moom la yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanal ne allahuma faqihhu fi diin wa alimhu taawil na nga ko déggloo fiq yow yàlla te xamal ko nu ñuy firi alxuraan mujj gi moom lañ tudde xibrul ummati mooy fóoree xeet wi mooy tarjumaanul quran xam nga nu mu daan def am na jàng naa ci Abu Ubayd ibnu Salaam téeréem boobu mu def ci alxuraan mm-hmm. mu ne ibnu Abbas dafa am waa ju bëri lu mu daan wàcce alxuraan ci Makka mm-hmm. u Medina mm-hmm. mu ne daf daan jël benn waay ne ko dem bàyyil xel waaj waxtu muy waaj a wàcce rek yëgal ma ko bu ko yëgalee rek mu ñëw ànd ak waa këram fekk jotaay wàcce ba ñaan fa barke Abdul ibnu Abbas kenn dootu ko jàngal alxuraan parce que am na ku nekk di nee naak moom ba ca takkusaan yi suuf ci minen nee na mu firi suratul baqara firi boo xam ne nee bu ko Rome ak Faris déggoon rek tuub waaw kooku li muy def kenn mënu koo jàng waaye nag ca dëgg ga lay yem jàng alquran ngir yàlla ñaan bañ koy xatmu ndax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na fu ñu wàccee alquran rek ñaan gu nangoon fa bon ñaareel ba mhm. saaba yi gis ne itam mhm. mës nañ tukki mhm. nekk mbooloo dem ci gàdd goo xam ne dañu nay nangu leen jox lekk nangu leen gànnale ñu dem beru ji fële sangu gàbb ga nag jaan màtt ko mhm. Buxaari yi ko nettali ko mhm. ko nettali mhm. ñu seet seet amul pexe ñu ne te ñu seet gan ñi kenn ñëw ne ndax am ngeen ci seen biir ku xam dara ci lugg jaan benn waaye ne man ñu yóbbu ko muy jàng di fuuf jàng di fuuf ba ba ji wàcc waa ji wér ñu jox leen gàtt yu bare nag wexal leen ki jàngoon nag ne la attention lii ma jàng laajuma ko yónni kon nag xaw ma lii daga naan de dama def rek ñu dem ci yonent wax ko ne mu ne ko loo jàng mu ne ko Faatiha la jàng yonent ne ko wa maa yudrik la allaha ruqyatun ku ma xamal ne mocc la antuñ lekk leen te jox ma suma wàll ah, bu fekkee ne mbir mi ci niveau yu mel noonu la nekk mhm. ñaan yàlla mhm. gën a boo jagee alxuraan wala ñaan gu wér goo xam maanaama wala nga bind ayatul kursi wala ñaan yi nga xam ne euh, saaba yi nee nañu yonent daf leen jàngal aouzu bi izzatillahi xudrati ak mel noonu mu ne dañ ko daan léemoo suñ xale yi mënta jàng ñu di ko bind di leen ko takkal ko li ma dul nangu kay mooy ñu mujj nag koñ bu nekk hmm. ruq bu nekk hmm. dëkk bu nekk mbedd mu nekk hmm. am benn nguru boo xam ne moom lu ko nekk lu ko nekk mu jaay ci alxuraan lu ko nekk mu diggee ko ci alors que wóorul ibnu anas radiallahu anhu laajoon nañ ko ñaan yi nga xam ne doo xam lu muy firi dañ rek mu ne bàyyi ko fa ba gis loo mun a firi wa maa yudrik laallaha kufrun ah. xamuloo lii ngay jàpp yow ku doon jàpp xërëm la wala jinne moo tax jàngal ñaani kooku wóor ñaanu alxuraan yëpp nag mm-hmm. dafa leer benn orientaliste nee na woon jàng naa ayatul kursi ne musuma gis ci àddina mm-hmm. jàng yoo xam ne décrire na yàlla ne mu ko décrire mm-hmm. nag dama yaakaar ne jullit euh, bu amee julli am yaa rabbi am alxuraan mun na ci barkelu mais nag bu mu fàtte ne daf koy digal di ko tere te loolu mooy code bi nga wax solo nag euh, mbooloo bu ci junne nekkee rek duñ neex contrôlé parce mhm. que ay millions mhm. alors moo tax ñun suñ philosophie ci biir école malikiye ci diine bi mhm. moo di luñ xam dañ cee jàpp yaakaar ko ku ci ànd ak ñun ñu yaakaaral la ku def leneen duñ la mun a condamné daf yàlla dafa yaatu mais nag duñ la fekk duñ la fekk si <laughs> nee ñu émission bi jeex na ba doon may nit ñi benn benn ñaan ban ñaan nga leen di may ñu koy ñaanee. yoo xam nga ñaan rek sooy. Mm-hmm. comme ñaan yi dañoo bari. Mm-hmm. man dama yaakaar ne dinaa wax baat boo xam ne dénkaane la. Mm-hmm. ak ñaan boo xam ne ñaari baat la. waaw dénkaane bi mooy. dafa mos gis loo xam ne ñëpp mën nañ ko. te du te du yoonteel mooy yunteel Muhammad ci jëy sul usrati bi nga xamee dañu war a guerre yi ca Romain te xaalis amul arme amul ba am na ñu ñëw sax di jooy parce que amul fas fu mu leen jox. amul amul ngànnaay daf ci am koo xam ne moom yàlla ko inspiré xadis bi daf ne dafa dem ba këram ci guddi mu jooy ne ne ne yàlla ñëw naa bugg naa jihaadi sa yonent bi amul lu ma jox pour ma dem mayit aw ma ko sama participation ci jihaad bi maa ngi la koy seddaloo mooy fii ma toog nii képp koo xam ne mës na maa tooñ ba amee ma àq may naa ko ko mu ne baal naa képp ku ma topp yonent xëy rek ne ko sa participation yegg si na alhamdulilah ma dem foog ni ku ne ci Sénégal mhm. avec ku abel ak ko mais te sa xëy na doo ci mën dara mhm. bu dëngu danga ko jéggal saafara baax ñaareel ba mhm. mooy lu simple ci Sénégal yëpp war nañ ko jàpp duñ ko bàyyi yonent yàlla ma xam nee na boo gisee dara lu la yéem muy tabax muy garab muy tool muy nit mm-hmm. muy discours muy conférence mm-hmm. koo gis daal mu def lu la yéen wala mm-hmm. nga nekk fanaan ko amuloo moom xëwuloo na neel macha allah macha allah wala allahu barik fii bu ko ñëpp jàppante dinañ ci toog bu deen doo dégg kenn ko dara dal macha allah macha allah moo ñaan ngeen leen waa ak ak allahu barik fii ndax ñaan jartu guddal te ñaan yi gudd am na ndax yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam xam nga ne moo fi gën a bëri ay ñaan mhm. mais bi yàlla wàccee qul a ak qul a'uuzu mhm. daanaka ñaan yu bëri la seen bàyyi jàpp ci qul a'uuzu bi rabbi falaqi a qul a'uuzu bi rabbi naasi <laughs> ulamaa yi rabbaani yooyu nee nañu ku ko mhm. fàttewul suba ngoon bu ragal dara Diop jërëjëf Diop am la moro Diop Diop Ibrahim